mbokk yi asalaamaaleykum seen doom nag dellu siwaat na muy kan Assane Gawlo Mboup seen site bu mag bii ñu tudde 28 pro nga xam ni dañoo ñëw ngir amal leen émission bu mag émission bi nag nan la tudd réew mi réew mi nag bu ngeen ko déggee xam ne mooy li ñu bokk te kenn mënu koo séddoo réew mi nag ñu ci waxtaane lan actualité actualité li xew ci réew mi di ci waxtaane démb di ci waxtaane tey te xam ni démb moo waral tey te tey moo waral suba daañu invité ay boroom xam-xam invité ñoo xam ni seen xam-xam màcc na ci loolu ñu waxtaan ci loolu ngir mën cee trouver ay solution kenn ku nekk mën cee wax sa xalaat xam ni réew mi nag ñun ñoo ko bokk émission baa ngoog vingt 28 pro ku bëgg xam daal li nga xam ni moom mooy nekk ci en actualité nga bëgg cee xam lu leer nàññi na nga dugg 28 pro kon na ko xaar yéen ñëpp xam ni bientôt daañu leen amal seen émission boobu émission bu mag baa ngi noonu.